wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu sang yu tedd yi nekk ci mbar mi yëpp sang yu góor yi ak sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi di leen indil nuyoo imaam Cheikh Cissé ca Mérina ak waa Mérina yëpp ak seeni ñaan yàlla mi ñu dajale fii mbóot mi tax mu dajale fii yàlla ñu ko woon tam tey attan ko tey jig ko tey tam jig tey nekk nit ñoo xam ne mën nañoo dolli mën nañoo dolli ndax boo xoolee mboor mi ñu fii tey di nga xam ne doomu adama itte ak mémoire ak référence bu ko amee rek mën naa am lu nekk te tey jii bésu taarix bu mag la pape mu ñoro rek waaye pour Saloum yëpp waaye pas pour Saloum yëpp pour Sénégal yëpp itam ndax ni ko euh, Ndiaye waxee ci discours am mu ne mus naa fee wax ne lu tasaaroo ci yiw ñoro ji li njëkk daje door a bon bu ñu dajewaat tey encore beneen yoon ndax am na beneen yiw boo xam ne bëgg na ko yàlla tasaarewaat yàlla bëgg na ko tasaarewaat ndax boo amee mémoire. am référence ci biir mémoire boobu mais ki ko war a génn bu ñëwut kenn mënu koo génnee dañ fi nekk rek di woy suñuy maam di woy suñuy baay di woy suñuy taarix mais après est-ce que woy bi doy na mais da nga koy woy woyee ci jëf da koy woyee ci amal maa ngi ñëw ñoroo tey gis sama bët dafa fees del xool xool xool lu fi indi mbooloo mi mbooloo moo xam ne boo koy jàng dangay gis ay maanaa yoo xam ne dafa mel ni ñoom ñëpp kenn ku nekk mu ngi lay jox benn leçon ne la nii la kenn ku nekk mu ngi lay jox leçon kenn ku nekk mu ngi lay fàttali mu ngi lay fàttali ne man fàttewuma sama bopp man fàttewuma li ma bëgg man fàttewuma fi ma jëm ndax fu ma jëm xam naa ko mooy li ma sumay maam xàllal ne ma jaar ci te amul dara lu ko gën a kawe ci àddina bi Cheikh Maba Diakhou bi muy dajale àddina bi fii pour ñu fii ndax lu nekk fii la jaaree fii la tey bañ seen jaaree fii la poroxan jaaree fii la yeneen jaare yépp samp waaye tey la seen googu moo àgg ba Nigéria moo àgg ba Niger moo àgg ba euh, fu nekk ci àddina bi tey bañ seen moo fa àgg Euh, Porokhane lu dëgër fii ci Sénégal ci diine kenn mënu ko see génne ci la bokk bon nag bu ñëwaatee delluwaat ci cosaan boobu nga xam ne fana taarix boobu soqee ko woon bon xëy na yàlla ñu bëgg yàlla jàngal leneen yàlla ñu bëgg woon leneen ñu ngi yaakaar bu ñu ko gisee yàlla nañ ko attan ñu ngi yaakaar bu ñu ko gisee yàlla nañ ko bëgg ci suñu xol ngi yaakaar yàlla nañ bu ko gisee yàlla nañ ci daw dimbalante ci comme ñu démb ñi dimbalante woon ba mun a bàyyi sët yu mel nii maa ngi ñëw tey gis mbooloo yi dëgg-dëgg la ko dalee ci buntu dëkk ba ba fii ay mbooloo daggut ci gannaaw ge kenn ci gannaaw kenn euh, sikkar alxuraan jigéen góor wa wa li lii yëpp lan la li yëpp lan la doo ko mën a firi ne man la boo ko mën a firi ne jaw la ne jaawo la am na lu mu doon taxam ngeen ko loolu mu doon tey xam ko mooy yàlla mooy def lu ko neex ci ay jaamam ak waxtu bu leen neexee jamono yi ñuy dund jamono yu compliqué la jamono corona parce que bii am na ñu wax naan ah attention boo demee ci dëkk ba parce que corona bi pré euh, gouverneur wax na nangam ak nangam ak nangam et tout palais palais Oh, mu ngi wax nangam ak nangam ak nangam ma ne feeg nit ñaa ngi fay toog di ma xaar dinaa dem euh, parce que loo xam ne boo cee demee lu la ca dal dara yàlla doon ci pour yàlla hmm? boo boo boo dee da ngaa shahid ci yoonu yàlla dara gënu koo kay da nga am ñaari shahid nag ndax feebar bi ci boppam shahid la waaye damaa dem ànd ak samay mbokk jullit uyu leen parce que ñoom woo ci yàlla bu ma demul uyu ji leen kan laay uyu ndax damay nëbb ci sama biir nekk ne corona bi dem du ko ca logga daw corona bi est-ce que mën na maa sol ci corona bi mënu ko mais boo ñëwee muy si boo ñëwee muy si jaam yàlla yu tedd yëpp nekk fi jaam yàlla yu sell yëpp nekk fi jaam yàlla yu baax yëpp kenn ku nekk yaa ngi ñëw sa tànk te dara indiwu la lu mooy dama bëgg a gis mbaax dama fukk a dëkk ji baax dama bëgg a bokk ci ñuy tabax mbaax ci sama biir réew boo fi ñaanee yàlla ne yàlla yàlla yóbbul ñu corona bi yàlla mën nañu ko yóbbul yàlla mën nañu ko yóbbul ci barke mbooloo yi toog fi yëpp ci barke xale yu mag ñi jigéen ñi góor ñi ah daje nañ am na lu xew munuñ ci dara suñuy pexe yëpp def nañ ko munuñ ci dara yow yàlla yaa ci des ñu ngi nii ak suñu ñàkk ak suñu néew doole ak suñu néew xam-xam ak suñu néew kàttan waaye nag yow am nga lu nekk ñu ngi lay ñaan yal nag yëkkatil corona bi yëkkati ko ci àddina bi yëpp eh, nit bu amul mémoire amul référence du tabax mais boo amee mémoire di nga fàttaliku sa démb sa démb boo ko gëstoo gis euh, ma ma jaxate ah. waaw euh, Mawla Diakhou danga gis ma ma Diakhou fii ci Nioro sa mémoire boobu boo ko gëstoo da nga gis ne ma ba Diakhou boobu moo tax sëriñ ca maam bàyyi maam El Hadj Abdoulaye ñëw fii moo tax euh, sëriñ euh, Mamour Anta Sali ñëw fii ak yeneen yeneen yeneen te ñooñu ñëw fii uysi ko parce que dafa oote woon li rafi kalimatillah moom dem na. te ak defu ko ni mu ko bëggee te ba mu demee keroog ba mu demee keroog la gañe geeram foog nañ ne gañe nañ ko perdre la bétail mais gañe na geeram ndax boo demee Fatick fekk fa Mouhamad Ahmad fekk fa Zawiya fekk fa Juma fekk fa ay xutbakat fekk fa ay iliman donc bon il a gré il a gagné la guerre parce que li mu bëggoon ci guerre bi am na ko hmm? li mu bëggoon ci guerre bi am na ko euh, perte benn bétail nag tout à normal loolu perte du dara te te perto sax parce que ihdal xusna yooyu di rek boo fa nekk yaa imaa nga dem aljanna directement yaa imaa nga gañe boo demee aljanna moo gën a neex noppalu nga te li nga bëggoon yàlla dina la ko defal sa gannaaw ndax boo demee fa fa dëkk ba ñu wax ne fa la daanu boo demee jàkk jumaa nga fa boo demee zaawiya nga fa boo demee tiyaana nga fa boo demee murita nga fa boo demee xaadira nga fa boo demee alquran nga fa boo demee xadisa nga fa boo demee lu nekk nga boo nee ñamaas ñamaas ci sa biir mémoire moom ngay gis fii ci Nioro boo nee ñamaas ñamaas ci sa mémoire euh, Maam Mor Anta Sali ne la maa ngi ak euh, Cheikh Ahmad Bamba boo nee ñamaas ñamaas El Hadj Abdoulaye Niass ne la maa ngi nii ak Cheikh Ibrahima Niass ah donc bon ñàkkoo mémoire boo xam ne boo ci taxawee gën ko amul dar loo mënta soppi boo bëggee soppi aljanna boo bëggee soppi àddina bi. waaye eh, yow toog gis nit ñi xale yi mag maa ngi jàngat maanaa yi nga xam ne moo dajale nit ñi fii ñëpp ndax kenn si ñoom ñëwul parce que damay dem fooy kenn si ñoom ñëwul parce que damay dem caaxaan yi kenn si ñoom demul damay dem pour plaisir diw mais damay dem dañ maa oo ngir yàlla dinaa dem uji ngir yàlla ak lu ma ci mën di fekk nga seet loolu bu yàlla di may ñëm doon may démb ci kaw maanaa yooyu la tabax li mu leen may wala xad aatayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bii aalimiina xam nañ ne li ma ko jox attan na ko man yàlla xam naa ne li ma ko jox attan na ko bon boo bëgg yàlla jox leen la attan na nga dem uy yàlla waxtu wu la wooyee ak fu man mun di woo demal wuy ji yàlla yàlla ma ngi lay en ma lay pareel ma ngi lay tabaxal loo xam ne dëgg-dëgg mënoo mënoo ko imaginer da ngay dem rek ba àgg si nit ñi di la ko wax comme jaawo man rek ma jaawo mais buñ ne jaawo ñëpp la sama xel di daj mais c'est ah seetal yàlla ni muy defee ak ni muy xamee waxuma waxuma parce que doom lu jafee xam la man ñes laa sant doomi bàyyi laa c'est jeex na waaye ñes mooy séqale am na beneen doom boo xam ne séqale lu tax moom ñes waaye kooku mooy doom kooku mooy doom parce que moo parce que moo yëkkati dolli ci li Cheikh Baye doon tabax ñaata école ñaata xale yu jàng ñaata ay boroom xam-xam xale bi jógee dem léegi def discours ci arab muy muy muy arab bu kawe kawe mi ngi torox lu naan dégguma sax arab waaye dégg dëgg arab mënta passé foofu mu làkkee noonu hmm? ma ah, xale bi jàng français moom tamit wax na ak xam ak ak modestie vraiment nit ku nit nit nangu la boo ko buy wax nga di ko déglu ak jikkoom di nangu li muy wax parce que jikko mooy accueil yi bëgg ah boo ñëwee di euh, ah, dañuy passé foofu dañuy passé foofu dañuy passé ne dañoo bëgg a àgg ci nit koo xam ne dafay defar dafa am benn woykatu arab dafa wax benn benn béyt bi ñuy toog di añ maa ngi fàttali ko béyt bi parce que yëpp a bëri yëpp yëpp bëri soos baa ngi fii njir ñi façon mu lekk bu nekk mi ngi waa ji mu ne dama dem ci àll bi di di rëb bi ah, ah laqad kasurati zibaau ala xadaashin fa maa yudri xidaashin ayuha yasiidu ah ayuha ah, yasiidu mu ne dafa dem ci àll bi di rëb bi ci kéwél yi kéwél yi bëree bëree bëri ba nga xam ne xamut ban kéwél lay war a rëbb mais boo gisee bool yi ci biir néeg bi tey te xam naa ne ci dëkk bi yëpp doo xam ban boo ngay dugal sa loxo boo boo bëggee doxal rek beneen la maa ngi nii beneen ne la maa ngi nii beneen gis nit ñi aussi ba ba âge bu nekk mi ngi nii soixante-dix ans yaa ngi nii euh, euh, un an yaa ngi nii trois ans yaa ngi nii yëpp ñu ñu daje lu leen dajale parce que dañoo am mémoire te dañoo am référence ci suñu biir mémoire lan lañ def ak ñun lu war a def pour ñoo ñu nekk suñuy maam nekk suñuy baay te mën nañoo def lu nekk wax naa nit ku am nit ko am volonté nit ku am mémoire am volonté amut lu mënta def ci àddina mën naa soppi lu nekk parce que nit ñi soppeeku yëpp loolu moo leen soppi ah? am nañ mémoire am nañ volonté boo demee tubaab yi boo demee fi nekk nii muy fexee ba ñun waa Sénégal yi ñu bëgg a gëm ne mool yàlla maam la ah parce que ñoo ko forcé <coughs> ñooñu ko forcé cesse d'être toi et sois moi ñooñu ko forcé mais fi dëgg lay fexee ba euh, Jean-Jacques Rousseau bëgg a nekk suñu maam bëgg a nekk suñuy mag bëgg a nekk suñu pourquoi ah pourquoi parce que ñoom dañoo am dogu ne loolu lañ bëgg am si àddina bi yàlla may na leen ko hmm? waaye ñu tam bu ñu bëggee dogu ci àddina bi ne am nañ ñoo xam ne ñoo gën Molière parce que Molière dundam ci biti rafet na neex na littérature philosophie et tout ça la mais Molière ci biir ci ci ci fële kan mooy Molière bëggoo koo xam ah bëggoo koo euh, ainsi de suite ñoom ñëpp ah, mais ñii nag maam yi nga xam ne nit ñi na nekkee ci mbooloo mi bu duggee néegam noonu lay mel parce que liggéeyut ak mbooloo mi yàlla lay liggéey te ba yàlla mooy awal euh, azahiru mooy baatinu moo tax yéemuñoo rawanteeg moom dañoo jéem a def li ñu leen def rek ba mun a tabax seen gannaaw génération yoo xam ne bu leen ooyee ëllëg ñu mën a daje ñoom ñëpp hmm? parce que xale yi ngay gis tey xale yu góor yeeg xale yu jigéen yeeg mag ñeeg ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ëllëg ki nga xam ne mooy ëllëg boo ko préparé wul bu àggee ëllëg du xam lu mu def boo ko pare parewul léegi parce que léegi la ci seen âge yii la ci seen ndaw yii la ci seen kattan yii la su ko defee mën ngeen a tabax ci seen bopp lu nga xam ne bu ëllëgee dañuy am ci yow yaakaar mais kenn du la wax ne góor gi toppal fi waay góor gi jéggal ñu góor kenn du la ko wax ah parce que ñëpp dañuy am ci yow yaakaar bëgg la te waxtu wii la boo ko ñàkkee waxtu wii dootoo ko amati dootoo ko amati nga ñëw eh, góor gi toppal eh waaye góor gi jógal fii waaye wax waaw waaw man sa papa la man waaye jógal fii rek ah doo fa nekk waaye te waxtu wii la waxtu wii la boo ko amul waxtu wii da nga koy ñàkk parce que waxtu wii lu tax nga am ko mooy ne am nga ku la ne am nga démb boo xam ne moo la tabaxa sa tey boo mënee am tey mën nga am suba ah buñ amutoon ay góor ñoo xam ne passé fii jaar Nioro ñoom ñëpp ñu jaar fi tasaaroo dem tasaare ji ah am ku mun a wax ne kaay ñu fàttaliku góor ñooñu kaay ñu fàttaliku fañ déparé woon ndax ñun tamit ñu mën a départ départ boo xam ne danañ mën a yokk ci nga xam ne suñu maam mën nañ koo def mën nañ koo defar ay xale ñu ni ay ay jigéen ay mag ay góor ñu ngi fii ñu ngi dëkk senegal te pourquoi mënuñoo jéem ndax mën nañoo def dara ndax mën nañoo def dara Sénégal a ngi ñàkk tool bët bu set mi ngi jàmbatu rek jàmbatu jàmbatu jàmbatu rek Sénégal yëpp jàmbatu jàmbatu jàmbatu bu dégg ba cëg jàmbatu parce que yàlla mu ne noonu nga mel moo tax ma lay créer looy jàmbatoo ah jéemoo dara jéemoo dara da ngay yaakaar rek ci ah waaye bés boo taxawee sabab pour samp pour jéem da nga xam ne jàmbatu nekku fi mais liggéey moo fi nekk te boo liggéeyee yàlla fay la yàlla ko wax ah boo liggéeyee yàlla fay la te may na la mbooleem xeetu liggéeyukaay yi xeetu liggéeyukaay yi moo lan mooy d'abord may na la xel mooy d'abord may na la xam-xam mooy d'abord may na la kattan mooy d'abord may na la ay pexe mais may na la suuf may na la asamaan may na la taw may na la ndox may na la suuf nee na suuf si yow bu la doomu aadama laajee jox ko mais asamaan bu la doomu aadama laajee jox ko mu des nag bon lan moo jaar sa digganteeg am lu mooy sa tayal rek ak sa ak sa tayal ak itam gëm loo xam ne àggoo fa xam nga Sénégal réew ndaw la àggaguñ fenn réew moo xam ne. Euh, euh, soixante ans d'obscurantisme ah obscurantisme ci lañ nekk ah ñu ñu ñu ñu amee ñu ay wax ak ay làkk ak ay nangam ak nangam ak nangam ba léegi kenn gisul lu leer léegi kenn gisul lu leer te dañoo bëgg lu leer te ci yéen lay sottee du révolution du saaga du xaste yow di defar dara booy boo saagaa boo ëllëgee ñu saaga la ah boo xaste boo ëllëgee ñu xas la mais naka laay fexee ba suma génération bu ndaw bii ma yaakaar ne ëllëg moo may defaral Sénégal naka laa koy mayee yoon boo xam ne dina am yaakaar ci boppam ba mun a toog biir réewam ah mais benn un jeune sénégalais fi mu ne passeport ak yi ñu ngay dem kay dem Italie moo ko gënal moo ko gënal ñu nekk fii parce que óolu óolu amul amul amul confiance ci boppam amul confiance ci réewam mais mën nañ mën na koo teral mën na koo amee te pourtant mën na laa teral mën na laa amee boo defee ne doomi yow doomi réew mu mën nañ def pour seen réew teral leen boo ko defee seen réew teral hmm? waaye bàyyi fi sa tool gàddu mbëgg mbëgg dem Dakar ñu naan la moodu moodu ah gar gàddu sa mbagg dem Italie ñu naan la Moodu Moodu looy looy ñibbisee boo ñibbisee boo demee ba am 60 ans looy ñibbisee ñibbisee woo dara parce que tabaxoo sa état sa état doolu woo ko dara xëy na am nga kër am nga am nga kër am nga jabar am nga nang of oh, boo toogoon fii tam am ko toogoon fii tam am ko ah mais pourquoi nag duñ seet suñu tool suuf sii ñu yàlla may suuf si mën nañoo génne lu nekk euh, dellu ci génne li ñu yàlla may dénk ko ci kaw suuf si dellu ci tool yi ñambi yi de bay ñambi bay dimb euh, euh, bay euh, yooyu am yëpp ah. parce que da ngay calcul pour avenir gis nga nekk nii suñ garab yi ñu am fii dimb yi dimb mutu mutu mutu lañ koy wax mutu mutu ak sumpu ak yi am fii yëpp tubaab yi seen garab yi ci nekk nekkul ci garab yuy defar ñoom waaw ba dañ koy ut si ak doole di ko jël di ko yóbbu seetal nag boo ci amee tool bu tubaab bi ñëwee du ko nangu da koy jënd dañ koy bàyyi bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ñam bi ma ñam bi yooyu yëpp dellu ci defar tool yoo xam ne loolu yëpp dafay génn te lu ci génn dafay joxe alal lu ci génn dafay joxe alal lu ci génn dafay dolli nit lu ci génn dafay delloo nit daf koy jox personnalité am daf koy jox dëgëraayam loolu yëpp lu ma nekk la parce que bésu tey bii uyu tey bii wane na Sénégal jeunesse bu ndaw bi ñu ngi uyu ñu ngi déglu lan moo leen mën a jëriñ ak lan moo leen di lor ah lu leen di mën a jëriñ moom la ñuy gëstu lu leen di jox ñu àgg fi ñu jëm ci seen côté économique ah moo leen moo moo moo leen tax a jóg parce que boo demee dëgg-dëgg Sénégal am nañ diine diine ji doy na sëkk rawatina ci biir taalibe Baay yi am ngeen diine xam ngeen yàlla nangu ngeen ko mais nag da ngeen a bàyyi ne àddina bokku ci te bu ci àddina bokku dara du sotti il faut ngeen boole ci àddina il faut ngeen liggéey il faut li may wax tool baay il faut ñu ñëpp ñu leen tool bàyyi parce que ñu soppi région bi ndax mën naa mën naa nekk hmm? bu bu dogu bi nekkee rek amut luñ mënta def te tool baay boobu bu taxawee taxawulu ma man yéen ñii la taxaw Sénégal la taxawal ah? parce que Euh, pro économie bi Sénégal mën na cee profité yëkkatiku taxaw taxawaay boo xam ne taxaw bu dëgër la te yéen yéen a ko liggéey yéen ñi koy yéen ñi ko liggéey itam yéen ay gën a jëriñu parce que dootu leen dem ci biti pour uti alal mais alal jaa ngi nii. ñoo ko te ñoo ko moom te ñoo ko bàyyi loolu yëpp lu ma nekk la ci euh, njàngat yi nga xam ne war ngeen koo jàngataat seetaat ko du demay ut passeport ak ak ak rek. Euh, dem maa ngi fàttaliku benn xale woon na ci yoon bu yàgg yàgg na léegi Pape Mahi dama bëgg nga ñaanal ma man dama bëgg a dem ci géej gi xew ci géej gi ma yëg naa ko yi dee ak naa naa ko ma ne ko bu ma waaree ñaanal ma laa wax man <laughs> ma laa wax ñaanal ma man damay dem damay dem bon ñaan yàlla ñaan yàlla ñaan yàlla waaye bi mu jógee bay dem dafa mel ni dangaa bujj sama xol bi place am waaye yàlla may na ko fi mu nekk plongeur la nga Italie am def na dara liggéey na dara bu ñëwee na indi métier euh, waaye du du loolu suma réew ñii lan laa ko mën a defal ak lan la ma mën a jox loolu la am naa suuf am naa ndox Sénégal suuf li fi nekk ci suuf yu bàyyi kenn utiliser wu ko te suuf su nekk ndox amoon ci biir mais pourquoi duñ jublu ci loolu taxaw ci ñu jéem a tabax suñu réew économiquement bokk ci ñi nga xam ne dañ koy tabax waaye duñ bokk rek di xaar gouvernement bi gouvernement bi gouvernement bi gouvernement am na lu mën am na lu mënut ah mën-mënam am na dafa limité bu yëpp la mën waaye gouvernement ak peuple ñooy mun mun boo xam ne mun bu absolu la ñoom ñaar buñ dimbalantee peuple dimbale gouvernement am jàppale ko ci liggéey boo xam ne moom moo koy def yaay liggéey booy bay yaa ngi liggéey sa yaa ngi yaa ngi dimbale sa booy booy jaay marché commerce jaay lu nekk jaay leen géej gi jaay leen yéet jaay leen euh, lu nekk jaay leen ko parce que géej gi ba géej gi fi nekk nii boo yóbbu benn géej gi Niger liñ ci am ci xaalis doo xam nu mu toll keccax yëpp dafay génne xaalis ta am na fi mais il faut ñu jublu ci yooyu bañ a bañ a bañ Euh, réylu réylu ba bañ gis ni ñun ëpp nañ lii ëppuñ dara boo amul ëppoo dara ah boo ko nanguwul fii rek nangu ko fële ah boo ko nangeewul fii nangu ko fële bon nangu ko fii nga xam ne teraanga pour yow te da ngay yëkkati ko ñu ngi ñaan bu baax a baax yàlla yàq yàlla yàlla yokk leen dimbal ñu ngi ñaanal jaaw euh, euh, jaaw comme niñ ci saxee di ko ñaan parce que ku jox exemple ku joxe exemple bu ñu war a roy kooku dañ ko war a ñaanal te jaawoo joxe na ko am naa benn gàmm mu ñëw fii am benn waaye mu ne bon man affaire yi gàmm suma affaire ah suma benn xarit doon ñëw rek indiwaale ma mais man affaire yi gàmm xaw ma ko parce que man intellectuel la intellectuel <laughs> alors ma ne ko man xaw ma xaw ma lan mooy intellectuel xaw ma ndax intellectuel mooy nga dem ja dem jàngi waxi jàmbur bu dégg ko ñëw di ko làkk loolu du intellectualisme intellectualisme mooy jëw si fi bopp maa ko def te yaa fi wax ne jeewo place bi jaawo place bi moo ko aménagé moo fi indi ay kër moo fi indi juma moo fi indi école moo fi indi courant ma ne ko kooku mooy intellectuel hmm? kooku mooy intellectuel mais intellectuel est la craque, intellectuel est salaud. Oui, euh, oui, d'accord, mais ce n'est du, du intellectualisme, ah, mooy mooy mettre mettre suuf bi ci sama kanam mën na ci génne lu ma dundee maag suma njaboot boo mënut a def loolu nekkoo intellectuel intellectuel wax rek ak léeb ak nangam ak nangam ak xaste ak xulo mais seetlu suñu intellectuel yi rek dëgg dëgg lan lay rendre Sénégal lu mooy obscurantisme rek lañu leen si bàyyil xuloo saaga euh, nangam ak nangam sa yaay sa ba li seyoon ci yaayam ak baayam yow seyoon yow la seyoon ci yow la ah c'est ça il faut te te bu leen nangu ñu leen di war rek di leen manifestation di leen manifesto ci mbedd mi ñu leen di dóor ak a rey ak a daane ak mais te buñ àggee fi ñu jëm sànni leen ah, buñ àggee fi ñu jëm li li li ñuy xeex na moom lañ fi àggee rek mel noonu. parce que amaguñ buntu buñ génnee Sénégal ci lim nekk ah, amaguñ ko hmm? bés buñ ko amee di ngeen xam ne Sénégal am na doom Sénégal boobu jur euh, euh, Seydou euh, Cheikh Omar Fouti Sénégal boobu mën naa jur senegal boobu jur El Hadj Abdoulaye Niass Sénégal boobu mën naa jur Sénégal boobu jur Cheikh Hadj Malick Sy boobu mën naa jur senegal boobu jur Cheikh Ahmad Bamba senegal boobu mën naa jur senegal boobu jur Cheikh Ibrahim Sénégal boobu mën naa jur juróom-benn juróom-benn biir mën na ko jur mais bon ak ñeneen ñi eh, jàng ci école français bi d'accord Senghor ak gaañooñu mais seen seen culture bu mag boobu yëpp anamu anamu ci anamu ci Sénégal ñii seen culture mu ngi fii mu nii léegi wax ngeen ko léegi ah ñaata euh, école junney école junney ecole ak xale yu jigéen ñuy jàng seen culture a ngoog yu may jàng nii yaa ngi julli boo tiitee am nga foo dugg laa ko fa ñaan yàlla ñoo ko def Eh, eh, ñoo ñoo amee tool yi di ko bay ñoo yëngal loolu yëpp ñoo ko def mais ana Senghor ana la Gueye ana intellectuel yooyu yëpp ana lan lañ bàyyi Sénégal pour ñu def ko ah tous obscurantisme rek lañ ñu bàyyi ah alors donc bon il faut ñu xoolaat ñu jàngaat ñu jàngat bu baax taarix parce que boo jàngul taarix euh, bu baax te xam ko ah da ngay jaxase rek da ngay jaxase rek mais jàng taarix nag fekk dañ lay jàngal ne la waxee ko nii loolu du jàng taarix jàngal taarix dañ lay jàngal taarix mais ne la cesse d'être toi boo cessé d'être toi ana nga fooy nekk nekkatoo fépp c'est fini jeex na amatoo foo nekk bon amatoo maam amatoo bàyyi amatoo dëkk ah yëfi jàmbur rek si ngay nekk di langaamu di. ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax ci jotaay bi gërëm sang yi fi toog yëpp dëgg-dëgg euh, sang yu kawe sang yu baax sang yu am yu mën lu nekk ñu ngi yaakaar yàlla yal yàlla dolli leen dëgg bu baax a baax yal yàlla dolli leen xam yal na yàlla dolli leen fit ba ngeen ñemee taxaw jàkkaarloog bis yi nga xam ne ñu ngi ñëw te dañoo war a feeñ ne ñun ay Sénégalais mën nañoo def dara dañu dañuy jiwut ba xam ndax mën nañu wala déet bañ la waxee cesse d'être toi boobu nga cessé d'être toi waaye c'est dugg ci fi jàmbur rek dugg ci fi jàmbur rek dugg ci fi jàmbur rek làkk làkk làkk ba dàq làkk euh, euh, euh, ah Molière dàq dàq dem ba dàq làkk Molière mais après ana loolu ci Sénégal Molière feeñal na ko France yow ana mu fii ci Sénégal doo gis dara doo gis dara doo gis dara waaw ah? yal nañu yàlla dimbale bu baax a baax gërëm bu baax jaawo euh, ak xale yi koy dimbali parce que bu boo amee loo mën a def amul ñu lay jàppale daanaka def dara doo def dara mais boo amee ñu lay jàppale ànd ak mbëggeel ànd ak dogu ànd ak volonté lu nekk rek yàlla mën na koo jaarale ci yow yal na yàlla jaarale ci jotaay bi ñu tàggoo corona yal na yàlla jaar jaarale ci jotaay bi ñu tàggoo ak ñàkk yal na yàlla may ñu ci jotaay bi ñu tàggoo gis ni man man mi man la yàlla dénk Sénégal ci suma baat waxuma de maanaam citoyen bu nekk Sénégal ci sa baat yow la ko yàlla dénk du ko sànq yàlla dénk dénk ko Macky kese Macky dafa nekk ci pouvoir bi rek waaye du mu kenn la ko Sénégal yàlla dénk yow Sénégal bii yow la ko yàlla dénk ah? gannaaw yow loo ko yàlla dénk nag fexeel loo xam ne daf koy màggal fexeel loo xam ne daf koy dolli di koy dolli nag mooy nekkoo fii di xulóog gouvernement di xulóog état da ngay daane sa bopp te mënoo daane état ah? bon nag nekkal ci jàmm ñaanal sa président yàlla may ko jàmm waxuma ñaanal nag ñaanal sa président ah ndax président bi kii dafay dem kii ñëw ñaanal sa président ki amee sa pouvoir réew yàlla teg ko ci loxo mu di ko doxal kooku dee ko ñaanal yàlla ah parce que lu mu am rek lu mu mën a def rek yow la koy defal bu baaxee yow la koy defal bu yéesee itam yaay yaay subir conséquences yi ah bon nag di ñaan baax na pour ñoom euh, di leen di leen encourager di leen ñemeloo yoon wi yooyu yëpp dina bokk ci nga xam ne dinañ ci mën a jaaree tabax suñu réew soppi nit ki soppi nit ki catégoriquement parce que ñun melaguñ ah, maintenant Sénégal yi melaguñ benn Hmm? am am ana ñu ana suñu nationalité ana suñu euh, enfin am na yoo xam ne bu ma ci duggee mën naa ñu jàpp ma fii tëj ma <laughs> waaye yéen nañu ko yàlla comprendre dimbale ñu si salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi